technique visite bi ñoo ko àndandoo donc liñ ci jël rek mooy ñoom ñu xool fi liggéey bi toll. et wax nañ leen li nga xam ne moom la ñu gouvernement bi sant que ne bëgg nañu ko pare fii ba euh, weer wi dee. donc euh, li ci des yaakaar naa ne balaa ñuy ñëw ci septembre dina fekk yeneen amélioration yi nga xam ne bëgg nañ ko ci apporter ñu mën ko def. conformément ak ñoom seen souhait sikki saka amu ko ci loolu xam nga man maa nekk depuis ay at maa ngi doon dajeeg yéen fii ñu amoon problème pour problème financement bi donc a quelque temps il y a quelque à peu près deux mois et je crois que ci deux bi tolloon ak fu mu toll tey donc ñun ci objectif bi ñu am mooy jeexal liggéey bi dem defi moom bokkul ci marché bi donc loolu moom jàpp naa ne du lu ñuy def xëy na bés bu ñu ñëwee pour war a jouer daañu luwee ci seen i indi pour euh, maanaam méngoo ak ñoom lañ bëgg toilettes yi aussi euh, li ma li ma waxoon rek laay waxaat ay sièges turquie lañ préwaroon ci marché bi mais comme ñun ñëpp ay Sénégalais lañu te gis nañ ne def lu gën mooy ñu ref ay sièges anglais donc jël naa engagement pour remplacer leen sièges turquie en sièges anglais et puis ci samay frais bopp loolu moom ma def ko rek ngir jàppale gouvernement Sénégal sàmm ko entretenir bañ fi organiser ay meeting bañ fi organiser làmb parce que gazon naturel la du leble donc gaso synthétique bi xëy na mën na am sax nga wut ay pexe mais naturel moom amul bor donc da nga koy def defoo ko mu yàqu bu ñu fa defee ay meeting def fi ay li muy bañ bu yàqoo seen responsabilité foog na dañu taxaw moo tax ma wane ñu war ko sam xam nga ah, Léopold Sédar Senghor defaroon nañ ko ba mu mucc ayib gis nga ne topp nañu organisation yeneen xam ne yàq na ko donc euh, yaakaar naan daal bii moom war ko sam pour bañ loolu am parce que bu bii jee yàqoo Sénégal day mujj obligé dem jouer ji wala feneen te loolu gàcce la war na pour réew mi jàpp jàpp ne daal war nañ sam bañ fi def lenn lu football parce que football moo ko tax man daal li ma mooy la première war jàpp naa ne <laughs> dara mun ko dindi bu ci yàlla ànde bokkul ci liggéey bi mais loolu aussi kilifa yi sant nañu pour ñu def ko donc euh, malgré nag waruñ ko woon a def mais ñu ngi wut ay pexe pour def ko te jàpp naa ne aussi date bi ma leen di wax nii bu yegsee dina fekk ñu defar parking yi aménagé kii bi euh, ci biti peinturaat médicolocture bi parce ko mais dañu wax pour loolu ñu wax nag pour ñu peinture ak nettoyer ko danañ ko def incha allah. dante amu ci loolu ren yi moom jël nañu toutes les naa ne semaine daal ci jeexitu semaine fi ñëw di um, we visited in December the progress of the stadium refurbishment. Um, obviously, from a Fox perspective, with such a significant investment behind the Wafu Cup of Nations, uh, we are very conscious of, of, of how the developments progress. Um, and for us to showcase this world class property to a global audience, we need to ensure and work closely with the local organising committee that the stadium is of a suitable standard um, to showcase the tournament as well as Senegal as a country. Euh, il a effectivement, euh, au mois de décembre, nous sommes venus ici pour voir euh, au niveau des travaux comment les choses progressent. Et euh, nous sommes revenus encore pour voir l'état d'avancement des, des, travaux parce que dans le cadre de cette compétition que nous allons organiser ici, nous venons avec des équipements suffisamment lourds et nous voulons faire une belle retransmission et avoir un très beau tournoi. Donc l'objectif c'était ça. Mais nous sommes euh, impressionnés par l'avancement des travaux qui se poursuivent Et nous allons également continuer de, de revenir pour voir comment les choses se passent. Euh, during this visit, you raised some issues like the chairs and toilets, and uh, are you uh, received the, director of the, the, Yeah, yeah, we've seen significant developments since December, but that being said, there's still a lot of work to be done. I understand that the developments of the stadium is not just for the Wafu Cup of Nations, but other big events that might be coming in the next few months. So, so hopefully these the, the, the speed of work continues, and the, the the stadium is ready within the next two or three months. C'est vrai que nous avons effectivement soulevé les problèmes dont vous avez parlé, mais finalement, on est, on est de plus en plus rassuré parce que les, les, les, travaux ne seront pas faits uniquement pour le tournoi de, de l'UFOA. Il y a des événements à venir dans les, les, mois qui vont suivre. Il y a quelques événements qui vont, qui vont suivre. Donc, cela nous rassure de, de savoir que les travaux seront prêts et livrés à temps par rapport à, ce, à ces événements qu'on nous a annoncés dans les deux ou trois mois qui arrivent. Uh, you want What is Fox? Um, Fox, Sports Africa is part of the Fox Networks Group for Africa. Um, globally, uh, CF. Uh, within our stable of, channels, we have entertainment, factual, and sports. Um, same family as as National Geographic, um, as Fox and Fox Life. So globally, we are the world's biggest sports broadcaster with distribution across each continent. Um, and and we in Africa we have, have, focused on football in West Africa. That's our partnership with WAFU Zone A and Zone B uh, to further develop football in West Africa, but also showcase some of its finest talent. Euh, Fox euh, Afrique fait partie d'un grand groupe euh, qu'on appelle Fox, euh, le groupe Fox, qui est installé un peu partout dans le monde, euh, aux États-Unis, en Europe euh, et en Afrique. Nous sommes venus en Afrique et nous avons signé un contrat avec l'UFOA dans le but de, de, faire connaître davantage Fox en, en Afrique. Sinon, Fox est l'un des plus grands groupes de télévision et de, et de, cinéma dans le monde entier, dans, installés aux États-Unis. Et donc l'objectif est de, faire, de, de, pénétrer le continent africain et de, faire connaître Force en Afrique. Et nous avons choisi l'Afrique de l'Ouest à un contrat que nous avons signé avec la zone A et la zone B de l'UFOA. Donc voici le, ce représente Fox.